jërëjëf yéen jóg leen jaayu Who's the money? jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yéen a ko xam programme nee na nee na nee na ñu mën a continuer programme alors ñu fi jërë ngeen jëf thank you thank you waa toog leen waay toog leen waay jërë leen jëf jërë leen jëf waay ma ne ko bëgg a bàyyi toj ngeen yàq waaw di gërëmaale am naka Sahel Network TV di leen jaajëfal lu bari because sudut yéen ni kon coverage bi du doon demi ji sac ba next next next next next di leen gërëm di leen santa di Sahel Network TV di TV yes di TV Mr Bacili waaw di la jaajëfal lu bare bare bare bare ok suñ next speaker bi yen bugg a bàyyi lañ waroon o oo yen da ngeen tass affaire bi because ma len buggoon a oo léegi dama len ay ci kanam waaw ok daga leen ko benn yon bugg a bàyyi. nga lay dégg groupe bugg a bàyyi ñëw leen. waaye five minutes 5 minutes ngeen am. groupe bugg a bàyyi. waaw bu len daga nak 5 minutes. bugg a bàyyi five minutes. ok. waaw ana. waaw dama ne waaw su ma nijaayee ngi noonu taxaw xam nga lu tax ñuy def lii ñun dañ nekk doon Banjul dino Banjul fi. waaw waaw suñ bàyyi juddoo fi suñ maam yi ada fii. waaw waaw kon tey duñ taxawee digg afkaay fii nii. waaw dañu war a wane suñ boppa. waaw waaw. yéen El Hadj Elhéré. jàppee bi nga mën a mos a kañ moom tafsir sama Papa Lidi sama xarit. kooku ñoo nekkoon sa business yi ak ñoom muy Papa Nitty. yu dóor leen gars yi jeex na taxaw si moom nag même génn àdduna. loolu doon boo génn léegi am lu ñu wax Modou Mbaye. tey da nga dëkk ak kii seen génn ak kàddu gi dëkk boy because cër ba mu te lii wax dëgg neex yàlla dafa neex waaye ñu ñu ñu seetal rek bu kenn mel. ah fi mu nekk nii dafa wax ne ñu oo Faboy Freza mu ñëw daal di wax ak mbooloo mi Faboy Abdou Aziz Freza. Seri <laughs> <laughs> waaw chéri Badiane waay wax leen loolu. <laughs> chéri Badiane waay. waaw waaw chéri Badiane <laughs> waaw. maa juum. nee na nee na nee na nee na ah yëpp ah, eh, eh, Paa Boy moo ko waral waay. <laughs> waaw waaw. dëgg la. ana Boy Diène. mbooloo bi. asalaamaaleykum mbooloo mi kon naa maa ngi nuyu yéen ñëpp fi teew ñu jëkkee si nu ma nuyoo si suma caaman Alaaji Mbay Gey Alaaji di si teg ah, coordinateur Badou Ndiaye di si teg Samba Ndiaye muy caaman te moom war naa taw di si teg ñoom Aji Fatou Ba di si teg Yaay Saw muy Aji Adam Sarr di si teg ki waral mbir mi mooy Ouswada ak soxnaam. de ce nuyu Mohamed Ndaw di nuyu Mohamed Ndaw moom wala taxaw Central di suma rakka di suma jarbaat di fi nuyu nag mbooloo mi ñu fi teew yëpp di nuyu Papa Liti Ñang honorable Papa Liti Ñang di nuyu Fatou Ba di nuyu Aji Louis Diop suñu yaay wa di ñu bépp ñu fi tok yëpp di ñu walé suma jabar muy bàjjan Senghor am mbir mi nak xamna né mbir mi mbiri Ouswada da moko waral te na né o Ouswada da kuko xam duñ la wara campagne sa pour nga sanil ko ndax da ñun ñëpp dañ tok bolo ne fu mu nekk daal leen yaakaar oos moo fi gën moo mun a Afdaay te da ngeen a war a bàyyi xel ne Papa Liti Nyangang fi muy honorable moo daan taaw Afdaay téye Afdaay fukki at moom sa jàppale na di support oos waada man maa ngi nii foog naa ne since 1994 maa ngi taxaw Afdaay man maa ngi jàppale oos waada kon nag oos waada foo naa ne ne soo leen nu gisee ñun ñetta yi toog muy Papa Liti Niang Paboy di war toog ñi daan taaw Afdaay tey di jàppale Oswada kon nga xam ne Oswada màcc na ndax Oswada su màccutoon ñun duñ nangoo dem si moom di ko jëm dimbale Papa Liti téye na fii fukki at man taxaw naa fi ñu man juróom juróomi yoon taxaw naa fi Afdaay kon nag suñ nekkee si gannaaw au dafa am lu ko waral xam nañ ne au limun li mun sa man mi doon taxaw munuma ko pour wax dëgg rek ndax mënuma ko aussi am na xam-xam aussi yàgg naa liggéey si nguur aussi bobu dimbale boobu wu pare ton dimale nañu bari muy góor muy jigen muy ndaw muy mak os balaa moo laata taxaw nii sax ku ñëw office mu faj sa soxla Ose mu suta gantu kenn Ose duy gantu xamul gàntu tàccu leen waay kon nag ku mel noonu ku mel noonu suñ ko joxee place na la war a mel fa mu amee doole amee afdaay ñun yàlla nu tàccul afdaay yàlla leen tàccul ñu am ku mel ni Ose Wada moo tax maa ngi ñaan mbooloo mi xale ndaw góor jigéen nu jàppale ni ndax oos waaj a te dina duga inshallah rabbi on the 9th of April inshallah weeri koor laa tombe waaj ne ne wiiw oos waada su soobee yàlla kon nag kontaan nañ fi teew am na benn am na benn firnde boo xam ne nit war na koo bàyyi xel gis ngeen ñu fi toog yëpp ay borom gannaaw leen ñu fi toog yëpp ñu am classe leen tey Banjul a fi ah, toog Banjul Banjul la fi toog xool leen ñi fi toog ngeen xool leen si askan yu rëy leen jógee am leen classe te ñoo amee Banjul tey loolu rek firnde la pour wane ne oos duga na kon nag gars ma emale suma wax fii du bari ndax tey danoo lonc rek jërëjëf jëf jërëjëf jërëjëf Paa Boy wax nga yëpp tooj nga yax bi